yëkkati naa nañu njortoon ni dëgg dëgg dëkk bi daal dina yëngu critique yéen kaay ne ma dem leen toog mbaa sax ngeen dem fa wi ndax fausse alerte loo ci mën ci dégg ni ki démb ci réew mi yéen bi ne ma fausse alerte la de coowal Prodac la daal mujjeewul lu dul ab dossier boo xam ni dañ ko daal di tàbbal géej fayal laaxu tribune yéen kaay ne ko déet tàbbeegul géej des na 16 février critique yéen kaay ne ko en tout cas démb moom attewuñ ko dañ koo dàq maam may naan Ousmane son dafa daw coow l'info yéen kaay naan kon loo ci mën ci dégg défense bi mooy ñu ànd ak Ousmane Sonko day ni ki démb ndam lu njëkk la ñoo ko am nag ñoo sàkku ñu daal di dàq procès bi am nañ ko maître Bamba Cissé naan Ousmane Sonko masta jot citation maître naan dama cay insister moom Bamba Cissé son Sonko jotul looloo tax nag ñun ñu ñëwal ko di sàkku nag ñu daal di dàq mbir mi ngir man caa xam dara ngir boo léegee ñu man ko layal maître naan loo ci mënti dégg it ab procès ñii wax ñii tontu da caa neex Ousmane nee na ngir xaar ba jox ko convocation mu ñëw nag layal boppam ci kanamu Mambay Niang procureur mel ku ku ngeen yàpp am na citation directe boo xam ni ku Sonko dëkk cité kër góor gi kër Ousmane Sonko moo ko xaatim te convocation boobee bañ ko koy jébbal dafa ne Ousmane Sonko moo ni mu ko ay avocat yu Mame Mbaye Niang daal di dëggal procureur xam leen ni nag Lamine Sonko moomee jot na convocation bi Mame Mbaye Niang naan jot na convocation moom kay moo bëggul ñëw dafa daw tribune yéene kaay en tout cas la tegu ci mbaggam bi daal di nay diis lool moom Ousmane Sonko yéene kaayub média bi daal di ne procès bi ak Mame Mbaye Niang buñ ko jàppee lu ndaw day dóor loxo ci ëkk xam ngeen li naan délit de faux loolu lee lan daal di ci dossier bi te délit de faux la wax mën na andil Sonko musiba naaru laay tribune ne ma démb sax am nay jaamaarloo yu gonay Pastef yi ak policiers yi ci Cité Keur Gorgui waaye maître Ciré Clédor Ly ma nga naan attention attention bi les procédés yi mën na jural Ousmane Sonko loo xam ne nii daanaka mooy raw jaxaan na ma ndax nag buñ ko toppee ba procès bi daal di yegg nag mën na tax Ousmane Sonko du doon candidat 2024 le témoin yéen a kaane loo ci mënti dégg état bi moom dafa mel ni ku yàkkamti atte Ousmane Sonko mi procès bi daal dinañ koy def fast ndax nag fañ ko Mambay Ñang Mambay costume cravate toog di xaar Sonko mu def jóginam yor ballon de football am di football Walf Quotidien ne ma en tout cas Ousmane Sonko day ñëpp la daal di dribblé ñu koy xaar tribunal mu dem ci salon de l'élevage waaye Walf naan maan gars yi day dina ñuy chargé du bi tribunal kon xanaa déggoo ma mbirum foom nga xam ne sànni nañ ko ci biir dossier bi ronkos ko ci loolee day boo maytul mooy nekk roob goo ne Ousmane dana ko wexaat ndax nag na caa jëlum ni mën na koo tere nekk ci réew mi sursu a naan man benn ci coowal Sonko Mame Mbaye jàll na waaye ci métti dëgg la daal di jàllee Moussa Sow conseil spécial président de la république ci la mandaane saa si temi day ñu nga focus ci sunu meeting bi ni amal dimanche bii waaye mënumaa ñàkk wax ci Ousmane Sonko opposition boo xam ni daanaka weer di dong lañ fi nekkee te defuñu fi tus ne waaye Yewwi Askan Wi amuñu programme lu dul manipulation waaye tam joxe ay information yoo xam ne wérul nekkewuñ ko ci réew mi tey jii nag lay moo leen dese te boo xoolee Ousmane bañoon France Omar Sow ne tey jii usu moo fi nangu France tribune yéene kaay naan kon en fa yallaaxu a intégré waat l'observateur ne ñaari kaa laa leen tuddee seeni kaa jeex na ñu war leen intégré waat moom ministre de la justice tàmbali junju wane yoon wi nga xam ni moom moo war a tax nag ñu amnistie leen saa si tembe nag moom président Macky Sall ci cëggal gu yëm la des vingt quatre heures yéen naan man ban ñàkkum fulla ak ñàkkum fayda la opposition bi wan président Macky Sall ba mu jàppee ko balum ping pong bi naan man seen ñàkku booloo day moo leen jural lii saa bu ñu xëyee nag wetti leen lu ne weng te am fu ko ñettee te seen ñàkku booloo bi moom vingt quatre ma camp présidentiel bi donc moo ci profito de ñuy noonoo ci dëggu la bu dee dëggu na ci ñoom mooy président Macky Sall waaye waaye lan moo leen teree boole seenu doole xeexandoo ko waaye tàqalikoo gi day diviser pour mieux régner ñi ngi tàqalikoo laa la mënu ñoo fexe ba président Macky Sall du am dëgg seen kaw tur bi naan man en tout cas ma ngi leen di weddi day moom Sall ngaari lam tooro ba ci boppam président nag faf moo koy layal réew mi ko dijeen ma président nee na bi am ci réew mi amut bopp amut la mu xamle leer na Sénégal moom moom moom président Macky Sall naan leen waxtu wa nga xam ne ñu liggéey am na ci ñoo xam ne amuñu lenn lu dul yàq xelu askan wi ak lépp loo xam ne effort la nguur gi def ko ñu bëgg koo salteel tribune yéen kaay mel ni ku naan kon waxuñu la Figaro moo wax moom président Macky Sall mel ni kuréel di tontu naan leen ak luñ mën ci waxit ñoo moom tribune naan kon ba ca cappaandaw ga lu taw a xam dëgg-dëgg dafa yàggul Sud Quotidien di ne ma a yéene kaay bi naan man boo bokkee ci bii boor boo sàccee kenn du la xool waaye boo bokkee ci bee boor boo sàccee tëddi kaso mbaa ñu yor micro bi di la noddal yéene kaay bi na ma ger gi li tax mu bëri ci réewum Sénégal mooy def lu ne weng te du faju gi Mor Gassama économiste enseignant chercheur ci UCAD ne loo ci man déggit xeex ger ci réewum Sénégal day du yomb ndax nag ñàkkub faj gi ak ñàkkub topp ñenn ñi moo tax ñu am fi l'observateur ne code des marchés publics CDC ak itam benn pàcc ca lañ lànkaloon secteur bu énergie daal dinañ leen di saytu téeméer boo ci marché ni joxe ci réew mi ñaar ya neeñu entre entreprise wala it action yu bëri ay soxla lañ koy jébbal l'enquête quotidien ne boobu président Macky Sall day ma ngay def plaidoyer ngir nag Afrique am infrastructure yoo xam ne dina mucc ay Walf Quotidien nan balaa ngay dem xamal ni day góorgóorlu saa si tembe danxatul ceeb bu niin ci réew mi ndax jën woo xam ne cher na ba jéggi dayoo Les Échos yéene kaay ne ma ñetti fan la disparaître Imam Tall ginnaaw bi nag la ñu gis ab néewam mu nekk ci saaku ci bassin de rétention bi ne ci ginnaaw hôpitalu CTO ci zone de captage muy mettit ak naqa jaaxal lool ñi mu dëkkaloon ni ki itam kuréel gi booti imaam bi nekk ci Sénégal Faatulaay ba job moo fa demoon ci fii ci bassin de zone de kaptage bi lañu daal di fekk imam bi wéeru ci canal bi rek seen ko teg yaakaar ne saako buñ sànni la ñii di werante nit la saako la ëmb buñ fi sànni la waaw ñu ci ëpp nag jàpp ni daanaka nit la ñi ko njëkk a gis jàpp ñu woon ne li nekk ci biir ndox bi ab nit la woon. am na benn xale bu jóge foofu ñëw bi mu séenee xam naa yére bi mu sol muy jàllaabi bi mu sol mbaxana am na kol goo nga xam si xañ na moom la daan teg ci baat bi ñëw na ba ci ndigli noonu biñ ko génnee xale bi ñëwoon ni kii sama papa la mooy imaamu jàkka ji ñun ñëpp daal metti na tiis na lool lool nekkoon lu metti surtout ko ba doomam daal di waxee ne kii papam la ci quartier bu imam Thierno Tidiane Tall daal di dëkk voisin yi nekk ci choc ba léegi. xalaatuñu ko réer na lundi après tukk tàkkusaan donc kenn xaarul woon nouvelle bu mel nii kenn xaaru ko nekkoon imam di dox ci diine di wax ci diine. jàkka ja këram daara ci jumaa ji la doon jiite ba keroog rek ñu koy gëj a gis famille bi nag jamono ji di xaar autopsie ngir xool lan moo faat imam Thierno Tidiane association des imams et oulémas du Sénégal nga fa woon méttit lu jef ji te am yaakaar ci justice def liggéeyam ngir ñu xam ku ko boom El Hadji ñu teewlu ko di ko ñaanal yàlla wàcc ci moom ñàkk nañu ku baax ñàkk nañu kenn ci ñun ci dogalu yàlla suñu borom ndax xamaguñu li ci biir yëpp ñu ñëwoon fii ci kër gi nag ndax moom xam nañ ko moom ci boppam ndax suñu membre la bi yàlla dogalee lii tamit barke démb ba tey ñu ngi ciy seet ñu ngi ciy ñaanlu ñu ngi ciy wax ñu ngi ciy dox ba sànq bi ñu jotee xibaar bi ñu ñëw fii ci kër gi seet si famille am bokk ak ñoom tiis bi di ci gannaaw yàlla na ko yàlla leeral ba ñu xam rek pour mu demee ump nañu jaaxal nañu bett nañu ndax xaar ñu ko woon ci moom ndax moo jiitee jiite takkusaan bi tàggoo dem di seeti beneen frère bi nekk Grand Yoff ki ñu doon waxal léegi ca marché ba la ñuy mujj am ay xibaar ci moom. di symboliser Simon gi nga xam ne actuellement moo moo nekk ci senegal euh, imam bi nekkul benn menace tey bu demee ba ci propre quartier bi mu dëkk ñu koy boom di ko sol ci saaku yi sànni ci bassin. parce que lii kenn xalaatu ko woon amaana bi ñuy déclaré ne sax euh, ay mbokkam gisatuñ ko xëy na njortu wu woon ne. Mhm. ci anam mi lañ koy fekkee. donc ça veut que foofu danger la. foofu situation la boo xam ne war nañ cee mën a taxaw sëgg ci wut ci saafara sa nga xam ne moom moo war parce que ku toll ni imam oh. il est innocent non seulement innocent mais du menace quoi je veux dire du mm-hmm. menace ci nit mm-hmm. ba nit war ko mën a def yenn yi parce que dañoo njortu amaan na ne dañ ko rey te loolu nag bu amee dafay doy waar ah xanaa peut-être di masawu ay mbokkam mm-hmm. di ko ñaanal moom mi nga xam ne dem na dem na euh, di ñaan nag lii fi parce que ima euh, El Hadj Omar Diène mi nga xam ne moo jiite imam ak ulema yu yu Sénégal euh, nee na nañu fexe mbir mi leer nañu fexe mbir mi leer ci imam euh, taal mi mais nañu fexe également mbir yi di leer ci ñeneen heureusement nag dégg nañ ne police mi ngi ciy def ay jéego parce que il faut quand même ñu xam yii ñu ko bàyyi noonu ñi ko def jëf ji ñaaw na jëf ji jekkut mhm. kon war nañ leen mën a wër ba gis leen teg leen loxo yoon def la mu war a def ca ñoom ba mu mët sëkk ba mu servir leçon ci ñeneen ñoo xam ne amaana lu ni mel dina dina dina traverser seen xel ba ñu koy bëgg a def ñeneen. ñàkk nge partout ci kaw ñëpp itam Mamadou Fofana euh, actuellement mom la ñuy dund. waaw euh, loolu day wane ne rek na ne que ne ñun ñëpp daanaka kenn nekkul ci loo xam te ne nii lu la wér ne ne Euh, que ne am nga sécurité à cent pour cent euh, c'est vrai que tey il faut reconnaître liggéey bu am solo bi nga xam ne ne force de défense et de sécurité yi ñu ngi koy def euh, daanaka lépp seen kéemtalaay kàttan ñu ngi ci mais nit ki nga xam ne day toog nas palangam mm-hmm. ci ne ah man de Hadj Mansour mii de bu ma xëyee kat wala suba de dinaa def ni dinaa def na le nangam ak nangam lel lal say pexe de tel sorte que di nga mën a peut-être li nga bëgg nga mën ko def gis nañ bijoutier bu fi xëy dem di fay ko si bor mhm. na mu mujjee moom mooy ci biir otoom ñu dugal ko ci biir saak mhm. donc loolu yëpp ay problème la parce que loo xam ne nit ki da koy prémédité ci loo xam ne yow xaaroo ko ci moom wala xalaatoo ko ci moom loolu problème la donc de toutes les façons je crois que police déjà am na un peu avance bu mu am ci mbir yi ci loo xam te ne nii kat euh, dinañ ci am xam naa lu gën a leer fii ak heure yi ñu jëm wala ci jour yi ñu jëm euh, beneen bi di xam naa ak certificat autopsie bi tey jii nii buñ ci jotee de résultat yi plutôt dinañ mën a xam fan la wàññeenti di mu jékki gëtam Mhm. mu nekk lu euh, doy waar ñu wax ci affaire yu Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko procès ba dàq nañu ko ba fukki fan ak juróom-benn ci weer bii ñu nekk bu ñu sukkandiku ci défense bi muy avocat yi Ousmane Sonko nee nañu euh, seen client jotul convocation ah kay la parquet bi wax jot yóbbu nañu fa convocation jox ko waa DIC du ko jël ñu jox ko gardien ba ci buntu këram Abdou Aziz Sow cay leeral. procès bi ñu mujj koo dàkk ba fukki fan ak juróom benn ci weeru février loolee nag avocat yi Sonko yi ñoo ko sàkku ñu sukkandikoo ci ñoom ñu ne seen client jotul rek citation bu tax mu waral ñëw ci kanamu tribunal bi loolee nag parke bi dàkk na ko bu ñu sukkandikoo ci procureur bi mu ne ab élément dikk moo dem kër Ousmane Sonko ngir jébbal ko boobule citation ci noonee leaderu Pastef bi ne nañu ko jox gardien bi nekk ci kër gi ñu jébbal ko ko lu ni mel partie bi dëggal ko ne Ousmane Sonko jot na citation li ñu wax kon amul fenn fu mu tegu gannaaw tribunal bi renvoyé bi lépp procès Ousmane Sonko ñu toppee ko wax ju ñaaw ju mu teg ci ndoddal ku muy accusé ki waaye itam saaga ak faux ci document administratif tey jii ci tribunal bi son Sonko tegu fa tànkam Mame Mbaye Niang la fa gis ci ay kàddoom mu ne yaakaaroon na ni bu am te jël tuuma teg ko ci nit buñ la woowee ci tribunal da nga fa nekk ngir indi say preuve preuve yooyee sax mu ne moom loolu rek lay xaar jëm ci lu Sonko ne rapport IGE dafa épinglé Mame Mbaye Niang ci luubal jëm ci alors Mamadou Fofana euh, foofu la fi euh, mujj ci euh, atteb démb bi ñuy xaar fukki fan ak juróom benn ci weex bi. waaw ci weeru février alors. waaw gars ñi nee nañ jotul convocation parquet nee na jot na convocation yëf yi mujjut am démb de toutes les façons lu ci mënte am nee nañ le 16 nañ ko dàkkandi dina fekk. naa ne convocation bi nga xam ne moom nañuy ping pongante Euh, dina dinañ ci dina leer gis nañ loo xam ne brandir ko sur le net ak yooyu mais li ci gën a am solo moom mooy peut-être moi je ne voudrais pas danser plus vite que la musique lu ci mënti am euh, moom Ousmane Sonko taxaw na wax ne ne kat Mame Mbaye Niang lu jëm ci moom ci lu jëm ci wàllum Prodac lam ca teg ñëpp dégg nañ ko jàpp moom it wax na ne am na ay preuve yu wane ne ne que ne Mame Mbaye Niang luñ koy sosal ni moom moo ko def donc loolu je crois ci kanamu juge bi nañ koy àtte peut-être man mënuma nekk juge bi ala la fois ci yëf yi Euh, nekkuma mbirum yoon moo tax donc du ma ci mën a avancer maintenant nag bu ñu demee ba le 16 bañ ca cëppaandaw ko ba ñu xam fu wànnent mujjee gëtam su boobaa dinañ ci mën a commentaire ak yooyu am na benn fait xam ne ne quand alaaj il ñu souligner ko démb ci kaay wuyu tribunal yoon may la sañ-sañ mën nga teew comme mën nga bañ a teew ci affaire u la dégg nga am nga ay avocat ñu war la mën a représenter même bu fekkee ne ne yow teewoo fa tamit ci doxalinu audience bi am na yenn sañ-sañ yoo xamante ne nii may na ko juge ci li nga xamante ne nii moo di ne peut sa doxalinu ay avocat ci dinañ wax wala duñu wax parce que yow mu fa war a teew teewoo mais woo nañ nit pourquoi encercler këram teg fa ay takk dar nit ñi bu ñu bëggee doxe seen soxla tiit nan la parce que kaawu Mame Mbaye ak mbirum Adji Sarr bokkul mhm. kon donc bu fekkee ne loolu dafa am mais nañ ko bàyyi moom mooy xool bu ko bu bëggee wuyu ji baax na bu bëggul wuyu ji moom la mais encercle këram ak ay policiers yu dul jeex dégg nga ña fa dëkk tiitati seen doom yi du ñu mën a dem du ñu mën a dikk ci procès boo xamante ne nii kat yoon may na nit ki bu ko neexee mu teew bu ko neexul bu mu teew loolu kay kon wasalaam yéen bu leen neexee dem leen ci tali bi parce que lan ngeen bañ moom mooy entrave ci dem beeg dikk bi lan ngeen bañ moom mooy nit ñi war a doxi seen soxla mënuñu doxi seen soxla mais ngeen mun fa reñu faire le reñe mais quant à encercler këru nit ki ci loo xamante ne nii procès boo xamante ne nii kat mun na wóoy ji yoon may na ko mun na bañ a ji bu ko neexee parce que am na ay avocat yu ko fa teewal loolu yëpp moom mooy xool mais loolu si waaye jaru ko fa beneen bi di tamit xam nga mbir tamit il faut ñu koy càmbar mu leer mbirum Mame Mbaye Niang moo tege mais moom Ousmane Sonko am na ñoo xam ne ne tamit da leen clamé ci yoon nañu jéem a tamit xool ni ñu mën a vider yooyu dossier aussi parce que loolu tamit day tax dina tax niit ñi au moins seetlu bu ñuy am moom mooy kat ne gaañu vraiment ñi ngi doxee doxin bo xam te ne nii kat li ñuy wax di leen ko tuumaal way justice boo xam te ne nii jaarul yoon nangam ak nangam au moins. Mm. mais am na ay dossiers yoo xam ne moom moo plainte ñenn ñi mais nañ ci donné suite wax ne na kat ah woo ko Ousmane yow yaa plainte diw di ngeen dem ci kanamu. Euh, euh, euh, juge di ngeen dem ci kanamu àttekat bi bu ko defee kat au moins nit ñi dinañ mën a am benn aisance par rapport ak yéen nii mais bu fekkee na ne dañuy instruire yi dossier yeneen dossier yi tardé wala mu yéex te ñu war ko inscrire su boobaa instruire su boobaa xelu nit ki kat dina tey ci yu bëree bëri donc hmm. yooyu noonu yëpp dafa nekk loo xam ne lu mat a bàyyi xel la te foog naa ne jàmm aussi dafa gën parce que bu fekkee nit ki am na droit dem wuy ji comme am na droit bañ a dem wuy ji procès diggante ak Mame Mbaye Niang mais gisuma tey la la présence des forces de l'ordre si te kër góor gi nga kii ko ña war a dem du ñu dem xale yi du ñu jàngi ainsi de suite donc loolu mën nañ ko. Simon da nga jàngat ci procès bi ñu dàq ba 16 février. ah xanaa ñu xaar le le 16 février ndax euh, Sonko dina teew ou pas comme jiital nañu ne jotul convocation donte parquet beeg euh, euh, partie civile bi nee nañu convocation bi am na ba génne nañu firnde. ñu xaar peut-être le 16 mais leneen li ci jara jàngat mooy euh, ñu bëri dañoo jiitaloon aspect diffamation hmm. diffamation bi la ñu gënoon a jiital mais leer na léegi ne du boobu kese parce que faux et usage de faux ci ab document mooy bi nga xam ne moo indi coow li sax mooy rapport bi Sonko ne moom moo épinglé Mame Mbaye Niang ci Prodac bi euh, parce que Mame Mbaye dafa jàpp ba léegi ne rapport boobu amul amul rapport bu ko ci épinglé loolu la jàpp kon bu ko Ousmane Sonko génne peut-être avantage am la bu ko génnewul tamit xëy na risque la ci moom leneen li tam mooy injure publique parce que amaana dégg nañ ko ca ba mu cay wax ak na mu waxee ak mu doon waxal ñoom tam ñoom ma mbay jàpp ne xëy na am na ñàkk woor ma ci biir loolu tax ñu rax ci injure publique mais lii yëpp boo ko xoolee Mansour moo lay wax rek espace politique gu Sénégal ni mu demee tey jii ni mu demee tey ji parce que gaa yaa ngi pant siro fu ne opposant pouvoir ku ci nekk noo mën a fexe ba jekkoo sa morom rek nga def ko ko te loolu nag defe naa euh, dañ ko dañ dañu war a monter yenn yi c'est vrai que nag yenn coow yi dafa war a leer comme ni ko Mamadou Fofana waxee mais peut-être bu ñu tolloo ci war a sore ci yëf yi nañ def attention mais quand même lii na leer parce que ay tuuma la yoo xam ne xëy na Ousmane Sonko teg na ko ci kaw Mame Mbaye Niang te Mame Mbaye tamit bëgg na xëy na seetal deram. Simon Pierre Faye ñu wax ci cour de euh, haute cour de justice euh, wala cour de justice de l'union économique monétaire ouest africaine UEMOA am na président bu bees mu ngi tudd Mao Sémou Diouf tànn nañu ko ay naataangoom ñoo ko tànn buy mandat wu ñetti at takkal nañu ko ndooma tànk ga ca Ouagadougou nekk ca Burkina Faso fàttaliku leen ni 2016. Euh, dañ ko nommé woon ju euh, juge ci wàllu euh, république bu Sénégal ci euh, mu représenté cour de justice bu ca Yomowa ci mandat bu am lu toll ci juróom benn at moom Mawo Sémou Diouf mu ñu renouveler ko fukki fan ci weeru janvier deux mille vingt trois ay nattangom ñoo def lu mel noonu fàttaliku leen ni nekkoon na doyen des juges d'instruction ci tribunal régional hors classe bu Dakar 2008 ba 2015 lu mooy loolu itam bokk ci ñi doon xelal président makisal Sall ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu yoon muy wàllu juridique makisal Sall dellu soit na ci polémique yi am ci wateraay bi ci ndaje bi nga xam ne dañ ko jegleel wàllu infrastructure ci Afrique yépp te am ay njiit réew yoo xam ne fekke si nañ ko ndaje mi ñu koy amal ci jam ñaajo ci kàddoom day am jaaxle leen yenn saa yi ci kàddu ñenn ñi dafa mel ni benn xemmemteef rek lañu am muy saboter lépp lu ñu taxawal ci Afrique surtout fii ci senegal ma indi ay leeraange kon ci li ñu doon wax naan terre bi Sénégal moomu kaak yu mel noonee ñu teewlu aslëf ci kàddu yi président Macky Sall. Euh, projet entièrement. xam ni état Sénégal moo ko financé ba noppi recruter nag compagnie euh, bu ca yàgg lool ci mbir mi. mu koy doxal ci nu mu gën a jonge nag ànd ak kaaraange euh, passager yi di nga xam ne ñoom ñoo si voyagé ñu nekk nag ñoo xamante ne dañ leen ci aar ndax sécurité bi lañu ci xalaat loolu nag di jur ay coow saa su nekk nekk loolu nag mooy tardeel Afrique ndax dañuy jug di dog dogatee suñu bopp ci jamono bi nga xam ne am na ñoo xamante ne ñu ngay xar seen tànku tubéy ngir di liggéey ngir lu jëmale ëllëg Afrique ñenn ñi dañuy toog ca pegg ga taxaw fële nag rek di faq jëf man biir na ma ne Afrique amul lenn loo xamante ne mën na ko ñeewe yeneeni réew yi mën nañoo def ba nga xam ne suñu continent bii gën a dàq ci yenn ci continent yëpp continent du monde. ndax mën nañ caa yegg Simon suñu continent bokk ci continent yi gën a yi dàq ci monde bi. Euh, yéene la pas-pas la waaye defe naa dina xaw a jafe. dina xaw a jafe parce que xëy na euh, Afrique ba léegi mi ngi wut koom mi ngi wut lu koy may xëy na mu mën a tolloo ak yeneen réew yi ci wàllu infrastructure infrastructure nag boo ko waxee bëri na. Hmm. école ci la kër docteur ci la ay hôpitaux. Euh, ay tali ci la euh, le TER bi nga xam ne moo waral coow li Sénégal ba Macky Sall di ci tontu xanaa loolu la ñuy naan tontu du forox ci la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dafay jëmmal tolluwaayu Afrique ci biir àdduna bi tolluwaayu Afrique surtout ndax mën na di diirante mbagg ak yeneen réewu tubaab yi yeneen réew yi nga xam ne peut-être moo ñu ëpp koom falaa waxe ne euh, xëy na koom googu la Sénégal di wut mais Euh, Sénégal ak Afrique. parce que mhm. sommet bi agence bu développement bu Union africaine Union africaine Macky Sall nekk président en exercice ñoom ñoo ko organisé ànd ci gouvernement bu Sénégal. Mhm. xëy na tam réew yooyu dafa am lu ñu mën a jànge ci Sénégal mais Sénégal tam war a tax war a jànge leneen ci ay réew yoo xam ne xëy na gën nañu situation loolu il faut également ñu reconnaître ko mais lu ci mën ci am ba des Afrique tey jii li mu yaakaar également mooy ay partenaires yuy jóge bitim réew. ay hmm. partenaires tamit xëy na yu nekk fii Afrique doomu Afrique am seeni alal am seeni koom mën ko cee def donc tant que yaa ngi yaakaar tam ci bitim réew jàppal na xëy na bitim réew def na jéego yoo xam ne dabu goo ko donc foofu la enjeu bi nekk tey jii pourquoi toujours ñu war a yaakaar bitim réew pour mën a sokkali suñu continent sunu diwaan yi suñu ay réew alors que xëy na ñun li ñuy wax tout le temps lép li Afrique soxla mi ngi fi mais mi ngi fi te mënuñu ko jëfandikoo loolu tamit beneen erreur la. Mhm. beneen beneen beneen taxawaay la boo xam ne sunu dirigeant yi war nañu mën a xool foofe te tamit bu fekkente ne lëkkaloo nañu ak waa bitim réew ngir tabaxal ñu ay jumtukaay ñun nañu xam lan la ñu bëgg concrètement mais surtout lan moo nar a nekk sunu diggante ak ñoom parce que bëri na ñoo xam ne dañuy ñëw di investir fii sa sa sa biir réew mais finalement ñoom ñoo lay dicté na nga koy defee ña koy ña koy yor ak euh, na nga koy gérer te loolu yëpp problème la.

maam est-ce que mën nañoo mën nañoo egg ci Afrique am ci ay jumtukaay loo xam ne xëy na dootul dootul ñee kenn. voilà euh, gis nga démb njiitu réew président Macky Sall bu muy wax nee na recul dafa am gannaaw bu ñu defee ab jàngat ci rapport annuel bu infrastructure yi ñu ni euh, biti réew nu muy investir euh, ci réew Afrique yi koppar ba mu fa daan dugal daanaka dugalatu ko ndax recul lu toll ci trente neuf milliards bu nga xam ne moom la ñu noté. defee mhm. dafay firndee ne kon ab bañ daan faral di ab ngir mën a wala nit ñu daan imposer seen xaalis di ñu ko abal. di ñu ko lebal ngir mën a investir fii mi ngi commencé wàññeeku bu commencé wàññeeku ça veut dire tout simplement que ne euh, réew Afrique ñi ngi tàmbalee dem di mënal seen bopp di euh, investir seen bopp sur fonds propres donte nag dañu nekk ci réew yu nga xam ne nii kenn manu demal sa bopp mondialisation la la ñu nekk ñoom waa biti réew bu ñu lebalee seen koppar c'est parce que dañ see gis seen njariñ daanaka ñoom rek man ñu demal seen bopp boo jëlee Sénégal lépp lu nga xam ne dañu ko fay liggéey ci lu baax ñu ci bëri day delluwaat sa seen i dëkk du ñoom ñoo ñu gën a yittewoo lebal googee nga xam ne ñoom ñu koy def Afrique nag su ma sukkandikoo ci rapport bi nga xam ne def nañu S23 plus S23 ultra daanaka taxu ko cher lool parce que wax dëgg yàlla boo amee cinq cent et quelques mille di nga am benn taxu koo cher kaay leen plonge pour découvrir ak Sofiatou Ba Ndiaye Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 ak Galaxy s plus la ñu lancé mu di ay smartphone yu mucc ayib yoo xamante ne ànd nañoo ko puissance boo xamante ne rek kenn mënu ko naatable te dina tax itam ba client yi nga xamante ne ñooy jëfandikoo yooyu téléphone téléphones am lépp luñ ci bëgg rek euh, ci nu mu gën a yombe côté sécurité tamit fàttewuñu ko parce que NoxGuard moo ngi si téléphone yi assurance ak aussi euh, cassure d'écran fàttewuñu ko parce que am nañ Samsung Care Plus yi nga xam ne daf lay sur un an nga am une réparation gratuite su dee da nga am benn accident ak sa téléphone ba sa écran ak appareil photo boo xamante ne puissance bi jéggi na dayoo smartphone Galaxy S23 yi nag dafay rek yombal ñi nga xamante ne rek ñoo koy jëfandikoo. o liberté wu créer lépp li nga xamante ne rek bëgg nañ ko maanaam euh, da ngeen am benn caméra boo xam ne caméra de deux cent mégapixels la boobu tey daf leen di permettre ngeen mën a jël ay photo si de nuit lu ñu woowee ci guddi photo yooyu jël foog naa ni mooy gën a leer sax su doon dañ ko jël yow directement ak beneen appareil photo wala dañ ko xool directement ak sa bët donc euh, xam nañ ne suñu client yi tey loolu dafa important trop si ñoom loolu moo tax ñu indi téléphone bu mel noonu. ñu nekk ay bijoux yu Samsung yoo xamante ne fii ak ay fan yu rek si marché bi ci ay njëg yu jafewul dara. à partir de cinq cent francs pour le téléphone le S23 qui téléphone de deux sera disponible incha à partir du seize c'est-à-dire dans une semaine et demie. kon nag client yi mën nañ commencer rek bàyyi xel appareil haut de gamme Samsung yi di Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Plus ak Galaxy S23 yi nga xamante ne rek fii ak ay fan yu néew dinañ ko mën a am ci marché bi. S23 Ultra dafa grave. yomb na petit 500 nga yokk a tuuti rek. am ci benn sa poche. Ah, waaw waaw caméra bi ñëw na. <laughs> dem nañ jëndi ko fa. <laughs> sant mais foofu la jamono toll nag am téléphone bu baax di filmer lu téléphone léegi day liggéey xaalis ah, bare sax yow. mais ñoom dañ ñoo war a sponsoriser. live yu bëri di def am ku nekk ah. plateau bi benn ku nekk benn dañ ñoo war a jox ku nekk benn. bariwuñu nag mën ngeen andi ku nekk benn téléphone. 500 bi lii moom bu fi jàllee moom mooy àdduna bi ñëpp wute moom Ah, <laughs> a ah, loolu nga foog fël ko fi jóge jàll de te toxul <laughs> ba léegi mu sakkan du mooy waaja <laughs> seul téléphone boo xam ni mooy appartement yi seul téléphone boo xam maam latewul buntu yibbee latewul maa ngi la am toog di xaar gars yi maa ngi porte ba léegi gars yi yor deux porte yeex trois bataille waaw deux bataille non man benn bataay laa <laughs> benn benn bataay am na ci. <laughs> deux bataay yi daal <laughs> bon pour pour gaañ ñi la jaajëf. jaajëf maam. jërëjëf jërëjëf député du maa ngi wuti S23. waaw boo amee ñaar jox ma benn ci tës la ñu e waxtaanee ci kanam tuuti. ay ci la pertinent lay jaajëfal yow yaa ngi yeeweeku waaw maa ngi yeeweeku la maison rédaction baa ngi lay xaar ay te ñu dalal Pape Matam bu borom jam siti yax duga mu ngoog ayte ñu ngi may jox turam ki ma doon wax sànq moo jiite woon euh, maraîchers yi zone des Niayes ndem si àlla si El Hadji Massey Diong voilà yàgg na xeex ngir ndox mi ñu yóbbu ko foofu ndoxu euh, SDE bi dafay cher ñu koy ñu kii temps yooyu SDE la woon neexul ba neexul nag mais ah yoroon ah non dama yoroon tëngeej nag correspondant bu taxaw laa woon ah, loolu moom c'est clair moom guddi la fanaan loolu moom c'est clair moom tàggat yaram Pape Mante Mbu jëm si teex dugaan maa ngi laa nuyu maa ngi laa fay le grand mère naka yi tey alhamdulilah sant yàlla bu baax baax la jàmm waaw ñoo ngi sant nag suñu borom bi bu a baax sunu gaynde ëllëg ne bi pare nañu de waaw gaynde Sénégal yi kon euh, pare na nag euh, ngir nag dugg ci finalu ëllëg gi seen diggante ak Algérie démb sax amal nañ nag euh, tagatu gu am solo goo xam ne daal wane woon nañ ci nag engagement gu am solo goo xam ne ëllëg bu 19 heures 30 jotee foofu ci stade Nelson Mandela ñu mën a nag am ndam li ci kaw nag ñii di waa Algérie mën a concrétiser seen rêve ci leeral fekk foofu ci diwaanu Algérie soxna Soxna Fall. ñoom ñëpp teewoon nañ ci séance d'entraînement wu bis bi Eliman Cissé ba léegi à l'écart lay entraîné kon du bokk ci bile jongante ñu def liggéey opposition ak tactique maître Augustin Senghor di njiital fédération sénégalaise de football woon na ci deuxième gaynde tam de suñu ginnaaw réunion technique gu finale Algérie Sénégal jàpp nañu ko ëllëg ci aljuma ji bu 9h jotee. kii di Kabilo Basilong coordonnateur général bi moo koy présider lu jëm ci wàllu conférence de yi ba tey ci àjjuma ji bu 10 heures jotee ci stade Nelson Mandela sélectionneur bu Algérie Bougera dina ànd ak attaquant bi di Sofiane Bayazit ci Sénégal nag 10 heures 45 Pape Thiaw war a ànd ak Muntaro Baldé arbitre gabonais bi di Pierre Ghislaine mooy rek officier bile final ñu am ferme intention dem ba jeex ci seenu ko rêve moo di gàddu titre continental bi ñu bëgg boobaak léegi mu yàgg le jour yi xam leen concentration bi voilà bañ a bañ a jël bañ a encaissé jël bi et devant ñu lu ñu war a def mooy si suuf loolu la ñuy gérer pour jéem a am dam kon mu nekkoon soxna Fall foofu ca diwaanu Algérie mi ñu toppal nag euh, lu soxal wàllum euh, CHAN bi dañuy desene sax si CHAN bi ak ministre des sports di euh, Yankhoba Diattara mi xam ne ne daal kon Sénégal nag dina def ab délégation parce que ne ci ànd ak douzième gaynde ngir nag gën a dooleel gaynde Sénégal yi ni ci ëllëg kon bu 19h30 jotee foofu ca stade Nelson Mandela Baraki nekk ca Algérie moom mi sax am na ab message boo xam ne jagleel na ko gaynde yi ngir gën a ñaax seen diggante ak Algérie yi le kàddu kii di Sadio Habibouka moo ko taataan les lions locaux mën naa ni gàcce ngalaama macha allah ñu ngi leen di renouveler les félicitations du président de la république ndax wax na ma ni ma Yankuba féliciter ma lions yi maa ngi leen di encourager donc premier match bi déjà contre la Côte d'Ivoire bi ñu ko gagné ci dama aussi waxoon aussi naa leen féliciter ma transmettre leen donc euh, les félicitations et les encouragements du chef de l'État donc du premier ministre Amadou Ba de l'ensemble des membres du gouvernement tey tamit yàlla def ñoom ñu dem ba final donc après onze années d' absence muy loo xam ni performance bu mag la ba tax na ñu ngi liggéey ak euh, le gouvernement pour xool nañ leen leen di gën a jàppale wax naa ko président de la fédération Augustin Senghor donc ñu ngi travailler pour xool tax na la ñuy renforcer donc euh, la communauté sénégalaise mooy le douzième gaynde ñu ne foofu di soutenir xale yi ah, gis naa ni quand même le public algérien est un public très chaud donc ils sont très motivés derrière donc leur équipe il faut donc pas xale yi nekk xale yi il faut euh, une équipe du deuxième Gaïndé qui est là-bas mais je pense qu'il faut quand même la renforcer donc loolu ñu ngi ciy liggéey ak premier ministre lu ci mën pour vraiment jàppale xale yi les pousser à la victoire incha allahu rabbi samedi prochain je pense que mérité nañu ñun ñëpp ñu féliciter leen encourager la kon finalu ëllëg gi nag lay doon Sénégal Algérie soxal nag juróom-ñaareelu édition. championnat d'Afrique bi nga xam ne dañu ko jagleel nag joueur locaux yi euh, Sénégal ak Égypte 19h30 foofu ci stade Nelson Mandela euh, bu euh, Baraki kon petite finale bi tey lañu koy amal 19h30 fas yéene dox ci diggante kon Niger ak Madagascar jàppal ni sax kii di Patrice Motsepe nekk njitu confédération africaine bu football ni ki kon ëllëg ci samedi bi bu 12h jotee dina jàkkaarloog taskati xibaar yi ngir dikkaat bu baax a baax nag lu soxal boobule compétition muy CHAN bi Mambay ñu waxtaanee kon barrage coupe du monde féminine maanaam soxal jigéen ñi sunu gaynde yi jigéen ñi ci boppam motivé la ñu def ndax nee nañu seen titre qualification faw ñu jëli ko sa Nouvelle-Zélande. waaw lu koy gën a firndeel sax bokk na ci Sénégal nag euh, gannaaw ba ñu jëlee kon tournoi IFOA à Dame foofu ci euh, Cap-Vert ni ki démb nag la euh, kii di Mame Moussa Cissé mi leen di tàggat doon jàkkaarloo taskati xibaar yi mu fësal nag listu ñaar fukk ak ñetti gaynde Sénégal sax tey jëlee nag la fas yéene kon jógee fii wutali nag foofu Mame Moussa Cissé gëm na ni daal gaynde Sénégal yi ak ndam li nga xam ne am nañ ko foofu ca Cap Vert war nañ mën a nag qualifié ci coupe du monde bi ñu teewlu ay kàddoom ak El Hadji am tournoi bi vraiment am ci juróomi mat vraiment dafa doonoon loo xam ne lu am solo la pour man parce que ñuy permettre li ñu jàngale ñu xool ko xayma ko ba pare ñu xool aussi joueurs yi ci ñoom ñen ñoo si mën a répondre si li nga xam ne moom la ñu soxla parce que ñëpp ñu ngi si woon di entraîner mais ñan ñoo gën a capable si wàllu technique si wàllu tactique si wàllu mantal ñan ñoo gën a mën a gérer environnement bu leen mën a permettre match ba li nga xam ni fan ñu jëm ñu mën ko réussir. ñaari final moo fa am da ngay gagné baa nga ñibbisi donc euh, donc moo tax bu ñu dem si tournoi bi match yëpp dañ leen jëloon final. tournoi bi may na xale yi confiance. wan na leen ni tey jii nii dañu war a football mais dañu war a gagné. il faut que culture boobu am si suñu équipe nationale yëpp. tey mu nekk ci xale yu jigéen ñi te je pense que tey jii ñoom ñu ngi koy euh, ñu ngi koy ñu ngi koy doxee et lu am importance la tey on est Sénégal mu nekk ci benn dynamique du xeep nit ñi mais ñun ñoo yéege suñu niveau foo xam ni tey bu ñu élevé suñu niveau waruñu taxaw ak équipe yooyu noonu. nag fële ñu jëm c'est un autre niveau ñun ñoo war a yëkkatiwaat suñu niveau ba yëkkati ko au-dessus de Haïti pour mun leen a gagner. mu nekkoon maam Moussa Cissé mi tàggat gaynde Sénégal yi di fàttali ni kon Sénégal tey jële nag la fas yéene jóge fii wutali foofu ca Nouvelle-Zélande ngir nag lu soxal match barrage yi match bu njëkk sax seen diggante ak ay ci lay doon ni ki fukki fan ak juróom-ñett ci weerum février bu ci jàllee rek dina dem nag si ñaareelu tour bi fas yéene ci laale ak Chili le 22 février la coupe du monde féminine bi kon dinañ ko amal le 20 juillet jàpp 20 euh, août ak sa Nouvelle-Zélande ñu waxtaanee jëwriñ ñu dénk wàllu tàggat yaram doxug ne meek loon am ngir saytu liggéeyu infrastructure sportive yi fu mu toll. waaw foofu nag euh, ca Ngor la nag tàmbale li ni mel wutali Yoff ñëw stade Léopold Sédar Senghor euh, dem tamit ca Cambérène bi nga xam ne foofu la ñu doon teg pose première pierre ngir lu soxal seen stade bi en lu ci mënti am daal Yankhoba Diattara moo ngi rafetlu liggéey bi fu mu toll te nag dinañ ko gën a surveiller ngir li mel a nekk loo xam ne dina nag jëriñ réew mi ci leeral ñu ànd ci ak Sadio Abibouka ni ko noonu Germaine Dior. gazon bu stade du Yoff dëgër këcc la def synthétique la waaye nag fii mën nañ fi jouer ñeent ba juróomi match ci bis bi te du am benn risque yàquti stade bi nag ñu nekk di ko defar jamono ji noppeegul lii état bi daal di ciy fere ñaar fukki milliards ak ñeenti téeméeru million mu war a pare nag fii ak weer lu teg. stade bi presque pare na ndax pelouse bi synthétique la mais comme ni ngeen ko gisee pare na posé nañ ko c'est opérationnel donc ñaari tribune yi nga xam ni ñu ngi ko doon réaliser également pare na. te grille de protection bi comme ni nga ko gisee assainissement bi mais des na quelques punitions moo tax euh, bi ñu waxtaan ak entrepreneur bi mu ni ñu may ko délai quarante cinq jours pour mu finaliser intégralement le projet moo tax moo doon demander au maire mais également à l'ASC et aux acteurs sportifs de Yoff de nous accorder un délai de quarante cinq jours pour que nous puissions terminer le chantier donc dans les normes. ba ñu paree Yoff stade Léopold Sédar Senghor la ñuy jëmali fii chinois yi ñu ngi fi guddi ak bëccëg di liggéey rek ngir réhabiliter stade bi seen mbëbën moo di def ko ab joyau multidisciplinaire te loolee ci li mu gën a gaawee. suñ ko paree dina bokk ci stade yi nga xam ni également ñooy gën a mag ndax soixante mille places la beneen bi mooy dina nekkaat aux normes ndax ni ñu koy tabaxee dañuy dañ koy def en conformité avec les normes FIFA mais également avec les normes de l'UEFA travaux yi donc ci trente trente mois la waroon dem entraîneur bi sax. mooy euh, chef de projet bi jàpp na ni ci trente mois dinañu livrer projet bi mooy moo tax ñu ni dans vingt quatre mois incha allahu rabbi suñ fi ñëwaatee en principe day war a nekk pour ñu dem def réception travaux yi te loolu defe naa ni nekk na lu am solo maintenant li ci des rek mooy le suivi donc xam nga ñoom suñuy liggéey les chinois yi dañuy indi seen i bureau de contrôle yoo xam day rendre compte seen gouvernement ñun tamit wax naa nañ dinañ ministère bi dinañu recruter un bureau de contrôle boo xam mooy assurer le suivi pour le compte de bu Ngor moom noppi na ba mu ngay accueillir ay match bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu tàggat yaram di ba Diattara fii ak i ay at yu néew dëkk bi di Sénégal dina pare ngir dalal compétition yi gën a mag ci àdduna bi te yi ak discipline bu mu mën di doon.